Samagal TV mbokk internet yi capture tabaski tey ñu ngi fii ci Daara Jolof luuma Daara Jolof nag euh, macha allah nañ ci depuis mu def léegi ñeenti at waaye ba may ñëw ca daral bu ndaw balaa nekkoon ba ca buntu ba tey nag fii defe naa ni moo fii moo gën a yaatu tey maa ngi nuyoo di wax ñii ma taxoon ñu wax ma situation daral bi fi naka la demee ak daral bi kañ la fi nekk salaamaaleykum ana président bi salaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullah mhm. man maa Alaaji Ngesooru man maa président daral Foray Daara Jolof. fii mooy mooy ci ban ci ban làkk la. fii mooy da daral Daara Jolof daral kar yi Daara Jolof. international waaw bu gën a mag. bu gën a mag bi moom la. bii ñaata at la fi def. ah. ah yàgg na fi yàgg na fi waaw. macha allah waaye tey dañoo ñëw gis ni daral bi dafa noog dañ ko gën a yeesal. est-ce que clôture bi fi nekk ak ak lii ma gis ci biir dafa noog ay tabax yu bees la. lal moo ko waral. waaw collecteur bi loolu moo su ko waral tabax woon fekkee kar yi kejut yokkaat. Ah. loolu moo tax nekk loolu moo indi tabak bu bees bi. Ah, kari yi moo katoon. Ah, waaw. léegi nag tabax yokkaat. ah ñu yokkaat yokkaat mur bi. loolu moo indi tabak bu bees bi. Hmm. léegi euh, tey moom gis naa fi fii bari na xar xaw ma nag euh, situation ren. noonu la ko gisee ak euh, situation yi passé noonu la gisee xar ren. man de li ma gis yi daal alhamdulilah kar yi de ñëwoon kar yi mu ngi commencé ñëw de xam naa daal am na yaakaar xam naa si fekkee mel na ni am dama yaakaar gaa yi waa Sénégal dana am luy tëf tabask parce que yi commencé na ñëw. waaw ñëwoon. prix bi nag xamoo hmm? prix bi moom li mën a yor mun nga ko jënd kar. xam nga li problème bi nga yor cent cinquante nga bond jënd kar deux cent mille loolu mooy problème bi maa li nga yor si poos saa seet si ka tege foo si bor rek da nga jënd ah, ah. macha allah ah. ci côté nag euh, fi ngeen nekk lan amagoo fi benn problème muy côté sécurité côté lumière ndox amul waaw temps yi moom côté sécurité alhamdulilah sécurité ñëwoon sa ji sa kar yi mëna duggé ni sa duggé ci buntu bi da nga gis sécurité eh, waaw waaw waaw sandar yu bari mo ñew fi ah, ah, loolu kam alhamdullilah loolu mom ah, alhamdullilah sécurité bi kam lumière bi guddi gi lumière bi alhamdulilah léegi kana ndox yi rek ma manki tout mais lumière bi mom sa ñewé fi guddi hmm. dafa lèr nañ waaw part loolu lan ngay wax euh, ñi nga xam ni ñi ngi euh, jëm ci tabaski bi muy jëndkat yi ak jaaykat yi nga xam yaay président daral bi lan nga yan kàddu nga leen di man daan dama wax euh, bangal tabaski bi jëndkat ku indi karam mu ngi jaay mbokam ku indi kaalis mu ngi jënd dañu war a dimbalante la bir borom kar yi naan la bir mën a jaay borom kaali bi ne la la biir seetlu si kaalis tol nu nga jëndoo lu lima ma waxoon léegi rek si li nga mën indi fi ah. da nga jënd mais nak problème bi da nga yor ñaar fukki jooni nga gis kar bu wara jaar fan wer ke japp ci mom rek sa amut bobu nga wax kar yi defa ser defa ser mais li nga indi ci euh, li nga tolnu nu jin li nga tolnu rek li nga tolnu nga yaa macha allah ah, loolu affaire bi jere ya, ya, jërëjëf hmm. xam nga ñëw salaamaaleykum kilifa gi tur bi maaleykum salam man Samba jale Ba mhm. euh, daara Jolof fii laa juddoo fii yaro yaroo allah Eh, li mu wax si si daral bi dañu nekkoon fee daral si biir dëkk bi ñu dem ba daral bi màgg ñun ñoo ñaanoon fi daral bi ñu may nu daral bi léegi ñu ne léegi fekkee tabaski bi nan tokku ñu ñëw fii am na ñu bañ a tokku am ñu nangu nañ tokku waaw uh-huh. eh, léegi daal eh, daral bi dañ waxoon duñu xeej léegi ñun xeej nañ ah bu nu kejutoon eh, lu nekk fii dañ koy toj nu ya yaatal ko waaw fe léegi nag macha allah keñ nañ léegi daal alaju mooy mooy président daral daara daral xar yi mhm. yaa ngi dégg de léegi Mauritanie Mali yëpp Burkina yëpp dañ indi fi ay xar ah. fii ñëw nañ état bi ñoom ñëw na ñu ñëw am na si gun ñëw dinañ dinañ ñëw chaque année xam dunu tar léegi daal macha allah lu alaaji wax léegi xar yi moom cher na boo amee li nga yor boo xeebul sa bot nga ne li bii de naa ko jënd car euh, deux cent mille fekkee mënul jar deux cent euh, passé na deux cent doo ko mën am ba am ne ñaar fukki junni kar ñaar fukki junni am na kar fukki junni ak juróom benn am na kar deux cent mille am na kar trois am yaa ngi dégg ah. ñun daan amuñu fii am nañ sécurité bu baax fii amatu sàcc li doon nekk fii ah. léegi wàññeeku parce que foo takkaw si bunt yi ñu ngi takkaw balaa genn xam dina xam foo joge ak ki jox xam nga bu nga jàkkee boo yàggee rek xam nga ne doo indi ki loo ko jox foofu xar dana yenn foofu ni jokk magi daral magi daral woote borom xar ñëw jël li alaaji wax lu si manqué nii rek ndox bi wante am na ni duus yu bari bi eh, ah, ñu ngi koy defar mbaa eh, yi pour yéen la ñun daal tokku nañ macha allah parce que ñooñu ñoo ñaanoon suñu dara ah. may nañ tokku nañu kañ nañu sant nañu maire sant nañu préfet sant nañu eh, ñu nekk si mairie bi ak gendarmerie yi ñun daal ñoonu uuf dina bala nit uuf sa bopp ala jën mu ngi magi dara bi moom mu ngi uuf boppam parce que mu ngi nit yi xale yi boo gis ku def lu dul noonu wax ko ñu génne leen ah, wasalaam jërëjëf sëñ bi tur bi Sadibou Diakhaté man fii laa dëkk ci dëkk bi. Daara Daara laa dëkk mais man maa représenté fii naar yi jógee xar yi jógee Mauritanie yu ci bari. man maa leen représenté fii. et d' abord wax rek ñu ngi sant yàlla. ci ma commencé sant bi wax rek Ali mi nga xam ne moo ñu jokkale ba ñu xamante ak yow muy Ali Biram Ndiaye. macha allah c'est comme li yëpp xëy gannaaw yàlla moom moo ko dox. su loolu passé suñu gërëm aussi suñu meeru dëkk bi. parce que gis nga daral bi melutoon nii. waaw nii moom moo ko miiree. def ci lamp yi def ndox ay douche yi et tout ça lépp wax dëgg yàlla ñu amu amuñu payam daal ci wax dëgg yàlla parce que lii amuñu ko woon dañu fi doon nekk jur gi di reer ñuy sàcc lu nekk am fi léegi loolu yëpp amatu fi léegi li ci des moom mooy euh, euh, deuxième fois aussi sécurité bi aussi vraiment gërëm nañu suñu sécurité ñu ñu taxaw organiser nañu oto yi organiser saret yi lépp lañ ko organiser ba nga xam ne amul benn problème mm-hmm. même sàcc bi ñu doon ragal fi sax amatul loolu yàlla ak autorité yi vraiment jàmbaar lañu ñu ngi leen di félicité su loolu passé aussi li président wax rek jur gi am na yomb gaa mënatul am parce que léegi lépp a seer mhm. wante képp nga xam da nga xool li nga tolloog xar yi li ma la moo départ nañu soixante mille ba trois cent mille su dee 60 nga am di nga am xar bu yem ak yow mhm. boo amee lu passé boobu baa ngay dem 300000 yëpp am na mais nit moo xam la mu yem ak li président wax rek nga yor 100000 nga bëgg xaru 150 mille xam nga loolu mënut a nekk waaye daal sant nañu yàlla sant aussi ministre bi ak état bi parce que ñoom ñoo ci jàpp aussi def euh, seen déclaration ba jàppandel yëpp mhm. taxe yeeg yëpp wàññi dindi nañ ko ba ku nekk fu waay toll nga mun a jël oto ñëw jaay sa jur nu la neexee boo paree nga denc sa xaalis nga dem doo am benn problème kon ñu ngi sant yàlla di sant suñu autorité yi di sant vraiment suñu maire di sant suñu président daral di sant ñëpp. macha allah wa taw wa salaam. waaw. salaamaaleykum. Adrame Ka. mën naa rawoon wax yëpp président wax na ko. yor fii carte deux cent mille. ko bëgg koo jot fekk yaa ngi yor cent mille. waaw loolu mënut nekk. Mm. waaw. luñ naar wax rek président wax na ko. waaw merci jërëjëf. jokk eh, maa ngi nuyu ñëpp maa ngi ziar ñëpp. Euh, ñu daal sant nañ yàlla bu baax di sant suñu président Aladji Aladji Nguessory Ka mooy suñu président daral hmm. aussi tamit di leen xamal fii daral fii daral daara fii hmm. am na ay jur yu yu bëri lépp loo xamante ne am nga ko soo xoolee loo loo loo yelloo di am euh, problème bi mooy lii mooy mooy xam nga lan mooy suñu problème mooy ndox mi rek ndox mi moom hmm. na ñëw parce que fii moom jur yu bëri moo fi nekk te daara ku ne day ñëw fii suñu sañoon dañuy gën a gën a yokk yokk mbir mi mooy yokk mbir mi mooy gën a taxaw daal état bi gën ñoo taxaw ñu ngi sant maire bi ñu ngi sant population daara ñu ngi sant ñëpp euh, ñu di leen gërëm aussi tamit di sant président bi président bu baax la macha allah ñu ngi kontaan si moom aussi di leen xamal ne tamit mbaar yi tamit bëgg nañu mu pare mbaar yi ah. parce que fii moom dafa naaj dafa naaj waaw dafa naaj il faut ñu préparer pour defar mbaar yi te renfort sécurité bi sécurité bi macha allah boobu baax na baax na trop nañu gën a a gën a defaraat daal ñu gën a defaru macha allah ñu ngi sant di leen gën. kon daal mbaar bi li ma gis nii daral bi toj toj bii ma gis fa la fii la yemoon mooy miir yi toj toj nii fa dara bi yemoon fa la yemoon léegi ñu boo yokk ci lii yokk ci lii moo yokk sama njóobeen ka suñu maire moo yokk sama njóobeen ah, ka moo ah, bi nii ah, moo tab di nga gis bi yëpp samba moo ko def fii moom macha allah ba mu nekk ci élevage moom gars yi santoon nañ ko même waa laa yeeg yëpp euh, euh, ñu ngi ko doon gërëm macha allah defoon na liggéey bu rafet nga ni waaw léegi man si bi hmm. dafa yeex xam xaw ma nag lu tax yeex ñun heure bi fekkee ñun jotoon nañ ripaas hmm. bu bari léegi Sonko fekkee mooy président na dimbal sàmmkat yi de na dimbal sàmmkat yi si ripaas bi. Ah. muy teel a ñëw. laa ngi dégg de ñu am mënu nun mun compter eh, eh, xar yi nan la jàppale si xar yi bu ñu amoon compter yi xar yi dana wàcc waana jënd ay eh, saako kéete bi ñetti junni ak ñaari téeméer nga jënd ay ay ton ton ton xar yi day gën a seer moo nan jàppale si si si ripaas bi bu fekkee moom toog na kenn mësut fi def dara nañu nañu defal magasin ripaas fii. waaw ripaas fii. fii ci isi ripaas. naka def dara naka def fii mooy fii mooy wuddu jolof yëpp. Mali Mauritanie nga xam ne transport bi di ci nekk léegi na mën a wàññeeku bu amoon usine fii. nga xam ne du am transport day wàññeeku. nan nan jàppale. waaw léegi après si may tëjee man. dañu lay yóbbante ci président de la république Diomaye. waaw ak Sonko premier ministre. Hmm. dañu ko dénk suñu ministre bu baax bi Samba Ndiobène. Hmm. élevage li nga gis li yëpp. nit bu nekk élevage moo bàyyi xel ci lii lépp nga gis. macha Jolof mooy mooy mooy moom mooy xolu càmm ci biir Sénégal. Hmm. yaa ngi dégg. mais moom depuis mu mu féete foofu vraiment lépp li nga xam ne doléance sàmm yi la xëy na xanaa lu mu mënul mi ngi koy def ci xam-xamam ak ci dooleem ak ci yëpp kon nag ñu ngi ko koy dénk ñun waa département Linguère. joomaay ñu ngi koy dénk Samba Ndiobène di ko dénk euh, le premier ministre. Sonko ko jëko dénk état bi yëpp ñu bàyyi ko suñu doom la xale bu baax la yal na ko yàlla jàppale gàcce ngaalaama aussi état seen liggéey jeex na mais teranga bu ne def na ko ci dëkk bi loolu daal lañu amoon luñ doon wax jërëjëf alaaj ah, tëj ripassé ah, président yaay tëj léegi looy tëjee non léegi nuy na waa liggéey ripasse bi léegi man dama bëggoon ripasse bi ñëw parce que sa gisee kar yi àll bi amul ñàkk kar yi dund rek ripaas kese la dund. Hmm. loolu dama dama bëgg saa demee nañu dimbali sa ripaas bi. nga ripaas bi ñëw. ripaas yu bari na ñëw xam nga fii sa seete daral bi ripaas bu bari moo gën a régler affaire bi. Hmm. léegi nag ñun de toujours day sant sama njóobeen. parce que lii gën a bari sama njóobeen moo ko def fii. sa gisee mbaar yi nekk fii. soo gisee robine yi yee douche yi nekk foofu lu ne mën a nekk fii Samba moo ko liggéeyee. parce que am na lu defoon fii mur bale affaire bi kat Samba ñëw. tabakaar toj ko tabakaar léegi ñun toujours ñu ñëw ne wax dama sant Samba. sant na gërëm yàlla yàlla yokk sa demee nga wakk jomaan nañ jàppal. Samba na jàpp Samba ñaari lokk. mu mu léegi ci ah. càmm gi ah. sant naan yaa ko ñëw fii ah. nga laaj suñu xalaat ak li fekk fi hmm. ñun lu nekk fii rek lañ la wax lu nekkut fii waxal lu ko dara naan teel ripaas bi na teel a ñëw hmm. nu jàppale sàmm yi euh, Sénégal yëpp sàmmkat léegi sàmm si bitti sàmm si biir ñu jàppale ne bu baax waaw salaamaaleykum waaleykum salaam kilifa gi siyaar naa la sant bu foo jógee ana foo dëkk man Jolof laa dëkk. fii nga dëkk Daara. waaw si côté Teskere laa dëkk waaye. côté Teskere. waaw. Hmm. Hmm. kon euh, kon kon am naa ay mbokk man lab gaar de waaw am na. Hmm. Euh, euh, fii xar yi nga indi ñaar xar la. ñaata. xar nga ni tey fii Daara. ah kan la ci lu may wala jaay. fii Daara rek lañ jaay. xar yi fu mu toll bi. ay cent ay cent mu kaw mi. yii ni nga yor. waaw li nga yor ay cent vingt cent dix. cent cent dix nga yor. waaw. Ah, xar yi yomb na sa kar moom du yomb. yow du yomb. ah kam lan kar doo yomb compte bi moo seer. Ah. Hmm. compte bi daal moom foog ngeen ko kal quoi compte bi moom dafa seer moom. compte moom ku dugg daral. Ah. da ngaa ko war compte bi ba pare. mais lan mooy solution nag so lan ngeen man lan pexe pour son compte bi. ñun daal nu ñu fekkee. bu ñu jaay mën a jaay kar yi waaye pour mu yomb kam hmm. moom loolu gis ma si fii bi gën a tuuti ñaa lay jar kar yoo gën a tuuti yoo gën a tuuti si njëg kar moom amul fi prix li ah. ñuy waxtaan rek fuñ kam ne comme boo demee marché waaw ba bëggee eh, ay jesner wala ay tergal waaw mais jesner na foo xam ne fa la yem waaw yow sax xarit fa yem man sumkar bi moo gën a yomb cent mille lay jar. Ah, cent dix a yomb cent mille cent dix mille. waaw bi. macha allah. Ah. ci subaa léegi nga jaay. man jaay na mu mat téeméer. jaay na mu mat téeméer. lu mat. téeméer. téeméer xar. waaw ah, waaw tey tey tey. tey tey léegi léegi nga lan mooy téeméer xar yow. cent xar. cent jaay nga jaay naa ko la ko. te midi yi doo ko jot nii. ah eh, yow jàmbaar nga de. jaajëf kontaan naa. Hmm? yaa ngi nii sax gaa yaa ngi nii gaa loolu ma jaaxal walla même les choses booy lan. gannaaw doo ma jaaxal. ay seer. mais loolu ma jaaxal. continué seer. ah continué seer ak nguur bi métti seen nguur bi. nguur bi neexul de. ci ñun kay. yàlla baax na. ma yàlla baax na waaw dina baax. na ma ay cent ay kàr. loolu ma tax instant bi bu ñu gisee xar yi. allah. ñu ngi jaay. didi tandu ma dum ya? he jaa tan tandu ya? didi tandu man nak deg pal la man man war jang pal nak mu ma jangon pal legi tek leen ñuy wax assalamu alaykum maaleykum salaam tur fo deuk teskere teskere wa mhm. ah, teskere bari ngeen teskere ak fi mom sori na sori 85 de 85 km hmm Taskare ak Labgar. 28. 28. Taskare ak Namarène. Taskare ak Namarène 25. 25. kon daal yéen àll bi ngeen koy jaaree. Hmm? booy ñëw bu dëggee Taskare ak Daara moom doo doon jaar tali bi de àll ngeen di jaar. ba buggee nga jaar àll bi ba buggee nga jaar tali bi. ah macha allah. Hmm, rang-rang boobu rang-rang bi. Hmm. Ah, waaw tey loo ni ñaata xar da ngay jaay fi daara chaque jour wala yow luumee ngay wër. ñu wër luumu rek par luumu rek. par luuma. Hmm. fii yan luuma moo fi am bala bala à part daara. ban luuma ak ban luuma moo am côté bi. fii. Ah. fii daara. waaw diggante daara ak ay taskare yooyu. amaali am na luum taskare am labgal am na luum. Ah. waaw. yooyu yooyu ban ban. wéetu am na ban bis la. ban bis la. wéetu talaata amaali aljuma. teskere alkames labgal talaata labgal talaata waaw macha allah mhm. fii nag sori na fi am na beneen luuma bu muy dégg galoya galoya waaw boobu dafa sori waaw boobu sori na waaw boobu de diwaan Fuuta yaare en boobu luuma abu kan la xanaa war a dem dégg naa sori na de sori de léegi tey ñaata xar nga indi woon fii man mii mhm. dama xaaj woon rek juróom-ñaar fukk ak ñett la indi woon nga xaaj bàyyi foo xaaj bi yow foo xaaj bi mu ngi ci kër gi fan la sama kër Teskere. ah yow fa nga dëkk fa nga fa nga waaw waaw day jóg hmm? day day jóg foofu sopp ñëw. Ah, yow ngay dàq. waaw waaw day dàq foofu ñu ñëw fii. 28 kilomètres nga dàq ba fii. 80. Hmm? 86 kilomètres. nga dàq. waaw dox ba fi waaw dox ba fi mën na ngay départ. Hmm? sub kay sub. waaw. altine talaata aral alxames aljuma dugg. nga dugg fii waaw. après boo dee ba ci àll bi nga fanaan nga tëdd nelaw foofu. waaw waaw. looy lekk. Hmm? looy lekk. ñu ngi ànd ak ay sare ñu ngi togg rek ceeb rek ak euh, yooyu. yéen mu ngi togg ceeb. waaw <laughs> ceeb ak yow. waaw ak gerte macha allah non yéen ñoom. yéen moom yéen yor ak gerte yooyu ak biscuit yooyu. non yéen. Hmm? ñu jara sargal ngeen. parce que li ngeen def dafa metti xool li ngeen dox. na de 80 kilomètres ba fii. wallahi metina na de metina na de. nii nga ci nii. di di surveiller xar yi. waaw. di ah di surveiller xar yi. bañ ko but set. léegi yow boo jugee tey fii. Mm. bu luuma bi jeexee. Mm-hmm. da ngay noppaluwaat fii wala da ngay demaat beneen luuma. dama voilà dama ñibbiwaat. da nga ñibbiwaat. Mm-hmm. teskere. waaw. dama ñibbiwaat teskere. léegi ñu doxaat ñoom demaat. jo dugg ci oto rek. nga ah, dem ah bii booy dangay booy dem da ngay dugg oto. bañ jeexalee rek dugg oto nga dem. léegi boo kiiyee rek da ngay oto nga dem. macha allah léegi yi nga fi indi woon. te mm-hmm. tey nga juróom-ñaar fukk ak. Hmm? juróom-ñaar fukk ak ñett il est midi ñaata nga jaay bu. Hmm? ñaata nga jaay bu ñaata moo dem bu. benn laa dem. benn xar benn xar moo dem ci. ah loolu métti na li. métti naa. kon jaay bi amagul. jaay gi amagul ñun kay sonn nañ ah bii moom xar bu ñu war a jar deux cent deux cent mille nga jaay ko fanweer ak ñeent euh, cent soixante dix mille. mais sa xar yi dañoo suur. Hmm, yaa ko yar wala nga ko jënd di ko jënd. déedéet dama ko compte toujours bañ bay. eyyi eh, dem ko compte beñ bay makkare aka biiƴƴi mali beñ bay machallah eh, léegi bu dee bu dee dafa des da ngay xaar ba beneen kii bi di ñëw lu waaw waaw ngay toog fii xaar waaw da ngay ci dalal waaw kar yi day day des fii day des fii yi moom dootuñu demaat mhm. machallah ah, en tout cas yal na yàlla def mu jar amin amin ah, en tout cas yow xar yu yal na ci yàlla def euh, kii waaye daal bëgg naa bis moom ma ñëw taskare xool seen dëkk bi mais mhm. lu ma taskare ban jour la alxames naa fa ñëw. alxames wal ma dëkk ba dégg nga. sàll noo tudd. Galaja Galaja. Mm. incha allah. salaamaaleykum. maaleykum salaam. tur soo nan la. Sofel euh, foo dëkk. fii commune Teskere wii di ci Ngoy. wii di ci Ngoy. Ah, Teskere Teskere waaw. ah yow taskare bëri ngeen fii de xanaa taskare na xar de. Ah, ah, am nañ ay kar moom. taskare est-ce que ëppul xar ci ah même boo ëppul xar dañu ngi ci biir. ah yéen ci biir moom waa taskare moom. waaw waaw ak dëgg yàlla. Eh, eh, da nga da nga da nga ñëw luuma wala da nga ñëw da nga pour luuma de wante luuma bu ne damay fi ñëw tuuti ay kar yi. Ah. Mhm. tey ñaar xar nga ni ko. ah fii de am na fii deux cent mille la xam naa ne. fii ni fi na de Ah. lii ak li jigéen daal seen gerte. waaw. Ah. waaw. gis nga traite bi seen ah. peinture yëpp. ñaata ñaata nga jaay ko ma peinture verte yëpp. waaw waaw. akar bi de saa waay dëkkul noonu noonu de yaay bi de na ma yàlla baara rek mu ngi noonu. demagul quoi. demagul de ñun de ñu ngi taxaw rek. yàlla xam ne ñu taxaw di contrer. gis nañu kam kar yi moom. njëgu bi moom dëggul. ah mais mais euh, jaayagum nga dara. jaayaguñ de. yàlla xam ne jaayagum comme ni ñu daan di jëndandoo par par quinze amagul. amaguñ de. amaguñ bi ah macha allah te tabaski defe naa ko defe léegi 15 jours yi des matatu ko sax waaw 15 de ñun de def nañ fi ñett dimanche ah. yàlla xam ne ah. dimanche bu ne bañ fi jaayee ñett ay ñaar loolu yëpp mu nekkaat compte affaire bi daal sawaay bari na coono ren moom tabaski moom wax dëgg yàlla affaire bi dëkkul ah, waaw gars yi ñu ngi koy wax de sànq ba léegi ñu ngi koy wax affaire bi dëkkul wax dëgg yàlla ñun de commencé nañ seetantaas depuis 96 waaye bii yoon li ñu gis tabaski bi mosuñu gis tapas bu mel noonu si ñun suñu côté ñu waa ji waa ji moom loolu la wax nee na depuis Abdou Diouf gisul lu mel man de 96 laa commencé dog tabaski ba tey tapas bu mel ni bu bari coono si ñun ah. éleveurs yi ah. mosuñu ko gis dag dangay taxaw rek jaay ñaari kar fekkee ci loolu ci ci ñaar la toll xar yi kar yi waaw ah prix de moom ay bu ñu amee ah. na nga jaay 130 125 bu ñu amee waaye duñ ko xam naa ne mooy ñu koy waxaat ñaari ñaata. ah ñaari jaay laa. boo ko jaayee. 240 baax na de. 180 baax na ñaari. amaguma. ñaari 180 baax na. ah. jaam ko ñaari 180. Ah? ñaari ñaari 180 boobu gee. albarka. 190 ñaari. yaa raw deux cent ah kaay leen waaw mais salaamaaleykum kaay leen cent quatre-vingts ma jox la waaw waaw ñaata nga ko wax cent quatre-vingts ah bi baax na cent quatre-vingts de bàyyi tànk bi mu wàcc nga jàpp bëccëg bi ma xool ah man way gaay bi baax na de tepp la def kaay lamba rek dama la kaay ñaar kaay gaay rek bu gën jëm jaay la billahi wi ma ka ma wax la gaay rek amul wañ gaay dama wax la dama lay jaay yàlla nak dama lay jaay kaay eh kaay waaw yow waaw kon ma jaay la de cent quatre-vingts kaay bu génnee ma jaay waaw waaw man maa la ko wax 150 nag. ah 150 nag. loolu day tuuti nag yow. ah loolu salaam. góor gi suñu naan la. ma Babou Diaw. ma Baba Diaw. dëkk fan. Touba. Touba. waaw. ah ñëw fekk la ay ay xaru yaru rafet di ko jaay. waaw. Eh, xar yi da ngay ñëw daara jaay si ko wala da nga eh, jaay daara. ñëw daara jaay si ko rek. Ah. waaw. xare ñaata xar fi indi ñeenti xar ñeenti xar yaa waaw kon xar yaa ko yar sa kër ba mu toll tabaski bi ñeent rek nga am am na yoo jaay ñeent rek waaw li jaar yi li jaar xanaa waxaale ba jubóo waxaale ba jubóo waaw loolu lay njëkk dama ba ko wala ko jaar ah mais kon góor yow éleveur nga de ah hmm. <laughs> sonn rek. sonn rek am na nag lii ku leen yar ba mu leen nii. waaw dee nga. dee nga de waaw contre rek. contre rek. contre métti na de góor métti na lool lool moo tax ñu taxaw nii ci naaj bi te dégg na pare yu neex. bii ma jaar. bii bii bëgg naa sept cent. quatre cent. bari na de. noonu ko jaay quatre cent. ma am ko ku ma ko jëlee. quatre cent quatre cent tuuti na. bii wax na quatre cent. léegi nan def ni jox ma téeméer ak ma jaay non non ma defal noonu téeméer ak fanweer ah man de boo bëggee karsan kaay ni kaay ni ñu xool ñu xool ko boo bëggee karsan waaw ah. maam ku ma waxoon léegi mu jënd ko de wala ko xeeb andi xaalis bi moo moo indi ko waaw andi xaalis bi léegi bële nag ban bii andi trois cent mooy bu ñuul boobu bu baax bi ci topp ah ñoo ñoo yem pare waaw bi ah nga def deux cent cinquante rek defal deux cent cinquante ma jaay ko waaw bii bu fay quatre cent ni nga ban. lii li ma la wax bu mën a waaw. bu ndaw ba. bee. waaw ñoom ñaar ñëpp boo ci andi loolu ma jaar bii ak bii. wallaahi ah. xam nga ne moom éleveur nga.